ba tey li nu mag ñoo waxoon rek bi ku tedd ki ñëwee fii eh, yaa nu gën a xam gouverneur da doon def bis bu nekk bu 14h30 jotee sëñ bi da daan jóge fii dem ba ca kër gee mu nekkoon di dem di signé ji ba mag ñi métit ko lool métit lu ko ni buñ ko mënaloon dara du dellu si waaye kon ñoom ñi mu nga xam ne ñu toll moo leen fa àggale ñoom lañ yeb ndeke sëñ bi dégg na seen xol dañoo bëggoon bu sëñ bi demaate ñu wutu ko fa dem eh, jaxase fa fa sëriñ bi ñëw woolu ña ko doon wax ba ñëw leen ana lu ngeen di nisër ñu ne mun leen li ngeen di xalaat laa wax xam naa ñu dara seen gémmiñ ne kuy dégg xalaat mun leen li ngeen di xalaat ñu ne ko dañoo bëggoon bu la wootee fee soo dikkee rek ñu wuutu la fa dem yàqte foofa ndax nun ñii la yem sëriñ bi ni leen déedéet li ma doon def àgg na ba noppi saa borom daf maa xamal ni ñoom ñii maa ñoom daa am lu des loolu laay waajal gis ngeen jéego yi may dem di seña ji ñëw mooy tax boo liggéeyee maa ak ñoom bu ñu fi nekkatul ko leen di sama waa ko fi teg kon alhamdulilah rabbil alamin ñu sant yàlla baax sëñ bi sëriñ Moustapha mu ni bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yéen mbokk yi fi teew yëpp. yéen bokk yi fi teew yëpp. sëriñ Ahmadou dafa wax ne. sëriñ dafa wax ne. mi ngi sant yàlla bu baax. mi ngi sant yàlla bu baax. di santale sëriñ Modou Moustapha boromam mi ko bind. di santale sëriñ Mouhamadou Moustapha boromam mi ko bind. soo ko sant sëriñ Modou Moustapha ci boole gi mu ko boole sëriñ bi. soo ko sant sëriñ Mouhamadou Moustapha ci boole gi mu ko boole ci sëriñ bi. jataay bii. xolom sedd na ci guy. xolam sedd na ci guy. lam ci bëggoon lépp it am na ko. lam ci bëggoon lépp am na ko. loola mooy lan. loola mooy lan. lu muy def lu ne. lu muy def lu ne. tege ci ndigal. tege ci ndigal. ak yéene. ak yéene. ba lam ci bëgg. ba lam ca bëgg. di ko sàkkul boppam. di ko sàkkul boppam. di ko sàkkul mboolem jullit ñi. di ko sàkkul mboolem jullit ñi. ak murit yi. ak murit yi. saa borom defal ko ko ci. saa borom defal ko ko ci. mel na ni nag. mel na ni nag. loola. loola. am na yaakaar ci ne. am na yaakaar am na ko. am na ko. ngir lim sa lim dëgërloo. ndax li mu dëgërloo. mooy. moo di. lu mu mën a def. lu mu mën a def. jàppale Cheikh Moustapha. jàppale ne Cheikh Momadou Moustapha. jàppale Cheikh Moustapha. jàppale Cheikh Momadou Moustapha. ci jëmmi Serigne Touba ji. ci jëmmi Serigne Touba moo tax mu di ko def moo tax mu di ko def. mu ànd ak njaboot gi mu seqal Cheikh Moustapha. mu ànd ak njaboot gi mu seqal Cheikh Momadou Moustapha. ngir fas yéene liggéeyal Cheikh Moustapha. ngir fas yéene liggéeyal Cheikh Momadou Moustapha. ci kër gii ci kër gii. waaye mënu koo def nag. waaye mënu koo def nag. sañu ko itam. sañu ko itam. te amu ndigal te amu ci ndigal te yow ci yow yow la yàlla dogal. te yow la yàlla dogal. ngay jëmmi Serigne Touba ci kaw suuf tey. ngay jëmmi Serigne ci kaw suuf loolu nag. loolu yi nag. pasteefub sa waajur bu baax wa. pasteefub sa waajur bu baax wa. ak xam gu mu xam kuy Serigne Touba. ak xam gu mu xam kuy Serigne moo la may jataay bii tey. moo la may jataay bii tey. mu wax ne. mu wax ni. xolam sedd na lool. xolam sedd na lool. ngir. ngir. lépp lu ñuy tàmbali lislaam. lépp lu ñuy tàmbali lislaam. jëme ko ci Serigne Touba. jëme ko ci Serigne Touba. soo ko teewee. soo ko teewee. loola la ca borom bëgg. loola la ca borom bëgg. am na am na ko. ngir ngir. yaay sëriñ Touba tey. yoway sëriñ Touba tey. te loolu. te loolu yi. kenn nattabliwu ko kenn nattabliwu ko. sëriñ bi wax ne. sëriñ bi wax ni. sag yaatal. sag yaatal. ak sag mën a jokkale. ak sag mën a jokkale. ak sag mën a bennoo. ak sag mën a bennoo. ci lépp. ci lépp. ci kër yëpp. ci kër yëpp. ak diine jëpp. ak diine jëpp. gis na ko. gis na ko. yëg na ko. yég na ko. te tàmbaliwoo ko bi nga toogee fii tey. te tàmbaliwoo ko bi nga toogee fii tey. tàmbali ko lu yàgg. tàmbali nga ko lu yàgg. teeg si woo ci bii. teeg si woo ci jataay bi lu ñu suñ geesoo rek. suñu geesoo rek. seen sa loxo ca biir. seen sa loxo ca biir. nga ànd ko ak ñoom. nga ko ak ñoom. kon soo toogee fii tey. kon soo toogee fii tey. di jëmmi Serigne Touba. di jëmmi Serigne Touba. mu ngi lay seeral. mi ngi lay seedeel ni. di seeral njaboot gépp. di seedeel njaboot gépp. ak ku fi teew. ak ku fi teew. jëmmi Cheikh Moustapha ak njabootam. jëmmi Cheikh Mouhamadou Moustapha ak njabootam. ñu ngi ci say ñu ngi ci say loxo. loo digle. loo digle. ca lañ fas yéene nekk. ca lañ fas yéene nekk. looy tere. looy tere. fas nañ yéene nañ yéene duñ ca jaar. ñu ngi ñaan nag. ñu ngi ñaan nag. ci borom pàkk bii. ci borom pàkk bi ci dara jaam. ci dara jaam. ak digganteem ak yonent bi. ak digganteem ak yonent bi. loo fi bëgg a toog. loo fi bëgg a toog. ngir liggéeyal sa borom. ngir liggéeyal sa borom. ak liggéeyal sa maam. ak liggéeyal sa maam. ak liggéeyal sa wajur yi. ak liggéeyal sa wajur yi. yal na la ko yàlla defal. yal na ko yàlla defal. te defal nu ko. te defal nu ko. na ko bëggee. na ko bëggee. mi ngi seedeel ñëpp it ne. mi ngi seedeel ñëpp it ne. sant na Sëriñ Muntaxa mii. sant na Cheikh Mamadou Muntaxa mii. ngir. ngir. li nit daa wax. li nit ñi daan wax. naan magi bas. naan magi bas. Serigne Mountakha doxal na ko diggam ak moom. Serigne Mountakha doxal na ko diggam ak moom. ngir Serigne Modou Moustapha. na ngir Serigne Modou Moustapha. magut woon Serigne Bassirou rek. magut woon Serigne rek. waaye buñ ne magi bas rek. waaye buñ ne magi bas rek. ñëpp xam ne Serigne Bassirou. ñëpp xam ne Serigne Bassirou. Serigne mi nekk seen kanam nag. Serigne seen kanam di seen mag. di seen mag di seen kilifa di seen kilifa di seenub sëriñ di seenub sëriñ di royuwaay di royuwaay gis nañ ni mu leen téye gis nañ ni mu leen téye ak ni mu leen jàppale ak ni mu leen jàppale mi ngi lay seedeel na mi ngi lay seedeel ni gërëm na ko gërëm na ko sant na ko sant na ko. mi ngi ñaan ci barke Cheikh Moustapha. mi ngi ñaan ci barke Cheikh Mamadou Moustapha. saa borom defal ko fan wu gudd. saa defal ko fan wu gudd. dama ko wér. te mu ànd koog wér. ba am yéene jim am. ba am yéene jim am. ci liggéeyal la yow mii. ci liggéeyal la yow mii. liggéeyal maamam bu baax ja. liggéeyal maamam ju baax ja. ci njaboot gi. ci njaboot gi. ak diine ji. ak diine ji ak yoon wi ak yoon wi yàlla ko yàlla mataleel yàlla na ko yàlla mataleel na mu ko bëggee na mu ko bëggee mi ngi lay seedeel na mi ngi lay seedeel ni njaboot gi mu seqal Cheikh Moustapha njaboot gi mu seqal Cheikh Mamadou Moustapha te magam yi di seen i wayjur te magam yi di seen i wayjur seen doom yi ñu àndal di sëñ Moustapha ñoog ngi lay seedeel na mi ngi lay seedeel ni nangul nañ ko nangul nañ ko déggal nañ ko déggal nañ ko lu mu wax lañ wax lu mu wax lañ wax lu mu waxul waxuñu ko lu mu waxul waxuñu ko kon nag yow mi fi ne kon nag yow mi fi ne te loo seede mu àgg te seedeel. dana la ko seedeel. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. nun njaboot gi. nun njaboot gi. te yaakaar sëriñ Touba. te yaakaar sëriñ Touba. mi ngi nuy yëgal ne. mi ngi nuy yëgal ni. kër gi kër gi kër sëriñ Touba. kër sëriñ Touba. goo xam ne. goo xam ni. sëriñ Touba ko sanc. sëriñ Touba ko ci. ay nattu. ay nattu. ak i tiis. waaye. waaye. la taxoon mu nangu ko. la taxoon mu nangu ko. te doon ko def. te doon ko def. lépp. lépp teg nañ suñu bët teg nañ ci sunu bët mi ngi ci suñuy loxo mi ngi ci suñuy loxo mu wax ne mu wax ni képp koo xam ne képp koo xam ne samaam sa maam daana jël si ndigal daana jël si ndigal ci kër gii ci kër gii di liggéey di fi indi di liggéey di fi indi mu ngi lay yëgal ne mi ngi lay yëgal ni bëgg naa yeesal kër gi bëgg naa yeesal kër gi te bëgg na ñëpp dugal ci seen te bëgg na ñëpp dugal ci seen loxo génnewul kenn. génn génnewut kenn. berut kenn. berut kenn. ñonkabluwut kenn. ñonkabluwut kenn. ñeewruwut kenn. ñeewruwut kenn. képp koo xam ne. képp koo xam ne. buñ la nee yoxos ci bàmmeel. buñ la nee yoxos ci bàmmeel. Cheikh Ahmadou Khadim nga fa yaakaar. Cheikh Ahmadou Khadim nga fa yaakaar. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. woo na la. woo na la. ngir nga ñëw jàppale ko ci liggéey bi. ngir nga jàpp ñëw jàppale ko ci liggéey bi. ngir wóor na ko ne. ngir wóor na ko ni. su kër gi yeesee. su kër gi yeesee. réew mi dana yees. réew mi dana yees. addina bi dana yees. addina bi dana yees. ngir. ngir. kër la goo xam ne. kër la goo xam ne. diirub li Sëriñ Tuubaa nekk ci àdduna. diirub li Sëriñ nekk ci àdduna. fii la Masaam fukki at ak juróom. yu mu ko génnul. yu mu ko génnut. ne di liggéeyal boromam. ne di liggéeyal boromam. yonent bi di ko fekk. yonent bi di ko fekk. sama borom di yónni Jibril ci moom. muy digal nit ñi. muy digal nit ñi. ak di leen tere. kër gi la mujj fanaan ci àdduna. kër gi la mujj fanaan ci àdduna. dem fee mu nekk ca Tuubaa. dem fee mu nekk ca Tuubaa. kon yeesal gi. kon ci yow. mu sàkku ci yow. sëriñ bi mi nga xam ne yaay jëmmi sëriñ bi nga may ko ci ndigal nga may ko ci ndigal mu ànd koog mbooloo mi mu ànd koog mbooloo mi jottali ko ñëpp nag te jottali ko ñëpp nag bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn kenn ku ne dugal ci loxom kenn ku ne dugal ci loxom sëriñ Touba nag sëriñ Touba nag dafa wax ne dafa wax ni ku ma defal loo man ku ma defal loo man ma defal la loo mënut ma defal la loo mënut ku ma defal loo man ak loo mënut ma defal loo man ak loo mënut ma defal loo jomb ma defal la loo jomb ku ma lebal taxab soow. ku ma lexal lebal taxab soow. ma fayal la nag wudul fer. mu fayal la nag wudul fer. ku ma lebal ker. ku ma lebal ker. ma fayal la guddi. ma fayal la guddi. kon sëriñ baa ngi noonu. kon sëriñ baa ngi noonu. lu ci waay def. lu ci waay def. sa bopp nga ko defal. sa bopp nga ko defal. sëriñ bi nga ko defal. sëriñ bi nga ko defal. defaloo ko moom mi toog. defaloo ko moom mi toog. day jawriñu kër gi rek. day jawriñu kër gi rek. te war koo yeesalaat. te war koo yeesalaat. di ko fàttali mbooloo mi. di ko fàttali mbooloo mi. waaye mi ngi ciy woo ñëpp. waaye mi ngi ciy woo ñëpp. góor góor. jigéen jigéen. mag mag ak ndaw ak ndaw. bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn. gouverneur yow mi fi toog. gouverneur yow mi fi toog. sëriñ baa ngi lay nuyu. sëriñ baa ngi lay nuyu. dina la jottali ab nuyoo ci sa kilifa. di la jottali ab nuyoo ci sa kilifa. di di la yëgal ni. nga yëgalal ko say kilifa. nanga nga ko yëgalal sa kilifa. ne ko ni ko. kër gii sëriñ Tuubaa moomoon. kër gii sëriñ Tuubaa moomoon. mi ngi koy yeesal. mi ngi koy yeesal. lu ko ci waay jox. lu ko ci waay jox. ak foo ko ko joxe. ak foo ko joxe. mu defal la ko ci mu defal ko ak koo mën a doon. ak koo mën a doon. ak fu mën a bàyyi ko. ak mu a bàyyi ko. mi ngi sant ñëpp. mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di soññu ñëpp. di soññu ñëpp. sëriñ Baara. sëriñ Baara. nun taalibe yi. nun taalibe yi. sunu xol sedd na ci yow sunu xol sedd na ci yow ngir woyof nga lool. ngir woyof nga lool. ba kenn ku ne mën naa ànd ak yow. ba kenn ku ne mën naa ànd ak yow. xam nga sëriñ Tuubaa lool. xam nga sëriñ Tuubaa lool. ba moo la may lii nga yor la may lii nga yor ngir ku ko fi mës a nekkal ngir ku ko fi mës a nekkal doon nga ab taalibe doon nga ab taalibe topp ci moom topp ci moom buy julli si jumaa buy julli si jumaa nga garde ko nga garde ko ba mu julli ba génn ba mu julli ba génn ba dugg ci wataam ba dugg ci wataam nga soog a dem sa yitte nga soog a dem sa yitte loolee nag loolee nag dara taxul doon nga doon ko def dara taxul doon nga doon ko def lu dul xam goo xam sëñ Tuubaa lu dul xam goo xam sëñ Tuubaa ngir jege goo jege woon sa wajuru baax ngir jege goo jege woon sa wajuru baax moo la may loolee la may loolee kon nag noo ngi lay sant. noo ngi lay sant. te bëgg nga ñaanal nu. bëgg nga ñaanal nu. nga doon ab roy waay ci nun nga doon ab roy waay ci nun ci xam nu ñuy téye sëriñ Touba. ci xam nu ñuy téye sëriñ Touba. ak nu ñuy sàkkoo ci moom ngërëm. ak nu ñuy sàkkoo ci moom ngërëm. noo ngi lay sant bu baax. noo ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm bu baax. di la gërëm bu baax a baax. jërëjëf. jërëjëf. sant nañ ñëpp. sant nañ ñëpp. waaw sëriñ Mountakha mu ni li nu jëkkoon a wax ak lii sëriñ mu Ndiaté wax nee na yóbbaale na li mu waroon a wax lépp li mu ciy dolli moo di jataay bu demee nii Cheikh Mouhamadou Lamine nekk fi ak njabootam gi ñu di ci fas yéenee semb semb wii nee na moom amu ci lenn ludul di yeesal ak cantam di wone mbégteem gën a yeesal sama di gën a yeesal ak jaayanteem rek. ci yow mii fi nekkal Serigne Touba. fas yéene ànd ak njabootu Serigne Touba gépp nekk ci sa wet. nekk ci sa gannaaw. fas yéene liggéeyal Serigne Touba rek. mu ne. nee na xam nañu sëmb wi nga semb. ak yéene ji nga am. ak pësteef bi nga am. ak bëgg gi nga am ci fas yéene liggéeyal Serigne Touba nee na xam na ko bu baax a baax a baax ñu ngi la ci sant bu baax a baax di la ci gërëm bu baax a baax di gën a yeesal seenu jaayante rek fës yéene ànd ak yow rek liggéeyal sëriñ tubaa loolu rek la ci am lu mu wax nee li des lépp Serigne Moussa wax na ko kon nag jërëjëf jërëjëf. waa mu ni mu ni Serigne Mountakha li mu wax doy na sëkk. kon xam naa dañuy daal di yaatal rek mu bu ko defee mu euh, teg xeer wi tey def ñaan Amen